ngeen suñu vidéo nag wala si biti réew da ngeen di abonné fii a jot nañ ko a xam ci tolluwaay bi jamono ji korona lu ko waay wax tooñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi. corona su ngoom danoo sàkk sàkk ko mu wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante sikki sàkka lu jiitu weddi aku déng-déng nun doomu aadama nun ñëpp li ci ëpp ci noonu la nekk ñi ngi déggante weddi ak ngëlëmte ak réer kon nu war a jugaat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 sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek ci li mu nekk loo muy li mu nekkoon rek ak lu mu nu jafe-jafe te dooloo ko sëkk ndax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 lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa mu sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yàgg ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci mépp mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci li bëgg doyloo ko ci lépp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 ci àdduna la moo xam ci àllaaxira la dara ci ca musa loolu nekkal sëñ bi ci bëgg rek sëñ bi moom boolewul ak dara boromam boole ak dara yonent bi biñ ko gisee ba fi nga noppee gis loolu moom teg nañu ci teg nañu ci yoon wa bàyyil na ko fi kon jaaxle wërta mën a am ci ci lenn nag kon nag kàddu yooyu wax ji moom wax na wax ba tey te njëriñ li bariwul waaye loolu fàttali sama bopp fàttali mbokki taalib yi foog fàttali mbokki jullit yi kàdd yi loolu rek la nanu góorgóorlu bu baax ci li nu fendi wa a xalaqtul insa wal jinna illaa liya'buduun wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun loolu rek doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen boroom di wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon loolu ko fi andi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rek lañ war a def suñ borom mi boole sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp. malu xaq ñépp di ñaan ñu bàyyonte xaq ñépp eh, loolu nga xam ne mooy suñu mooy suñu mooy suñu liggéey buñ ca nekkee eh, ak ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laabirante ak ku dimbilante loolu rek moo lañ moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh, sama bopp mooy moom laa sa jiital ñu ca samay bokk sama bokki taalibe sama bokki jullit loolu rek mooy li nga xam ne dara jigunu ci dund junug àdduna gi waxuma laa junug àllaaxira gi dara dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu fi jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëriñ bi tolluwaay bii nu toll mel na ne tiital na ñëpp waaye dan faaw nu ñaan sun moroom jàmm yëpp suñu mbokki jullit yëpp suñu mbokki taaliba yëpp yàlla daqal ndawam loolu nga xam ne du def luñ ko digalut fuñ te fañ ko yemloo mu yem fa waaw waaye nag du tee ñaan ndax ñaan jaamu yàlla yi jiitu bu naa mooy moo xoog ibaada mooy li gën ci jaam jaamu kon ñaan faw nu def ko ñoo ñaan yàlla euh, gën noo gën noo sàmm gën noo aar gën noo musal ci lépp luy loraange musal na ci jëpp jàngoro ju mën a doon rawatina jàngoro yi gan jees ji moo ngi sant bu baax a baax a baax eh, kàddu yi da mënta ñàkk waaye eh, sunu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun mu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu son sunu borom bi mu neexu sa jox jox xam bu ñu xamoon lenn loo ko xam ne dina ko jox akam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 moo ni dimbali ba suñu jaamu ñu jiital ca euh, yëkkati màggu suñu borom gi eelaawu kalimatullahi looya moo ngi ñaan bu baax a baax borom gàddunu euh, gàddunu nag tawfiq sëñ Tuubaa ba mën a gën a gën ko mën a jaamu gën a gën a mën a jaamu suñu gën a mën a sax ci jaamu bi gën koo mën a sellal def ci ñu def ci ñu dimbaliwul nag ban mën caa def suñu kéem kàttan waaye jaamu yàlla yombul ndax gën ji bi def moo wax ne kenn koo xam ne sa jëf yóbbu àjjana ñu ne ko ah yaa Rasulallah ba ci yow mu ci man lu dul suñu borom ci mbarum yër ma dem bi ne moo ko wax kon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 li may wax ne rek dañ ko war a jéem ba xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu nu ko gën a xam eh, di gën di jege lu nu ko gën a dund di gën di mucc di gën di raw kon ñoo ngi sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi li ngeen ci man lépp def ngeen ko waaye suñu borom moo demee noonu te sëriñ bi eh, kenn mënu ko roy kon noo ci diggante boo xam ne eh, xam suñu bopp xam suñu warteef di ca góorgóorlu suñu kem kàttan loolu rek. moo ñuy dimbali dund bari nañu gàllankoor lool ay ay xat-xat kon dañu ñaan rek su borom gën loo gindi ci boppam gën loo gindi ci sëriñ bi nuy gën di mën a wéetal yàlla di sax ca dàkk di gën di xam sëriñ bi di ko gën a dund yàlla na ko su borom gàttandoo ci biir ak bitti ak tey ak ëllëg jërë ngeen jëf ñu sant bu baax a baax a baax a baax jërë jëf. ñëpp tàllal ñëpp tàllal. ngeen si biir réew mi wala si bitim réew da di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo ngir mën a xam li nga xam